ñu tudd comment ligue bi ni nga xam ne noonu la noonu gën a avancé ñenn ñi nga xam ne xamuñu sport sax ci yooyu la ñu xamee ne Djibril effectivement moo yor euh, ligue pro bi waaw bon xam nga euh, on a eu beaucoup de problèmes parce que aussi quoi qu'on puisse dire mm -hmm. nous avons eu de grands monsieur dans dans sport les Keba Mbaye les Lamine Diack c'était de mhm. mais nag héritage bi ñu jëlee si ñoom tax ko baax trop héritage bi waaw sur le plan infrastructure et tout ça mhm. parce que par exemple je je je je donne l' exemple du Jaraaf. Mm-hmm. qui est premier club sénégalais. mu ngi doog am infrastructure sous Cheikh Seck. ah bon. mu ngi doog am. infrastructure sous Cheikh Seck. Mm-hmm. avec les doyens là euh, c'est-à-dire ni ma ko mën waxee mooy borom kër bu yoree njabootam te amul kër bu génnee àdduna rek dafay sonal njabootam. Mm-hmm. dëgg la wallaay la. te këru këru sport sportif mooy terrain de football. infrastructure local hôtel et cetera. Mm-hmm. pour que nit ñi di mën a regroupé wu. Mm-hmm. di mën liggéey. Mm-hmm. mu ngi mel ni un cultivateur bu amul tool. muy luy tool wala muy abu tool. et cetera comme ça du mën liggéey. donc ñun au départ on avait ces problèmes là ensuite y a eu beaucoup de crises beaucoup beaucoup de problèmes dans le football sénégalais mais maintenant à partir du comité de normalisation la euh, benn race de dirigeants une génération de daje. bon xamante wu ñu woon les Augustin Senghor les Ablaye Sow Sayer Seck Djibi Wade Lamot mhm. xam ne dañuy ils en voulaient. ils ont mis en place la ligue professionnelle sous l' accord de l' État et on a commencé à travailler maintenant nag vision président Augustin Senghor moo doon nañu xeex pour avoir une bonne de grand club. Mhm. sur le plan économique. Mhm. mais ñun nous pouvons produire de bons joueurs. joueurs bu ñu demee à l' ñu waar leen. liggéey ak ñoom pour faire une très bonne équipe nationale. Mhm. bon nag on a fait du long et ça jox Sénégal notoriété bu ñu Coupe d'Afrique maintenant mais les clubs ont beaucoup travaillé di Aliou on a eu des présidents qui qui ont investi. waaw ah, suñu président bi daal mais yaa ngi ko présidents de club. voilà ah. mais je après mhm. il a bénéficié. Mm -hmm. du président Abdoulaye Wade fi mu fi am sali. Mhm. am aussi l'apport. muy jàmbaar ah. des Français. pour mettre l'institut jàmbaar. Euh, Madi il a plus le temps de négocier avec euh, avec Metz pour mettre ce centre de formation là ça nous a beaucoup aidé les clubs aussi ah. traditionnels sont retournés à la formation mm-hmm. mais si c'est cette formation là moo jox li tey et ça nous a donné un bon championnat mais malheureusement y a pas les infrastructures qu'il faut. un bon championnat voilà voilà. mais les infrastructures font développer et jusqu'à présent ça manque. bien sûr parce que nag aussi mais yéen ñëpp yéen ñëpp tu n'es pas à l'aise boo ànd ak sa famille après mu am histoire doo bëgg a ñëw. mais les Sénégalais ils le football. li muy liggéey.